Euh, pour mu jëm ci ba moom lañ ñëwoon sax dañ koy dañ koy évaluer xool mhm. plan bi fan la mu jég yu ni mel mhm. parce que pour man noonu lañ ko mën a saafara malheureusement am na ci ay ponk yoo xam ne nag am na yu mu mhm. parce que boo demee fu mel ni Kër Massar am na góor yoo daan mel melatu ko ak lépp loo munti wax am na ci loo xam ne saafara na ko ci inondation yi waaye ba tey dañagul te état continuité la kon ñii ñëw tey ji bu ñuy bàyyi nguur gi dina am loo xam ne dañ koy saafarawaat léegi naka la ñuy def ba li ñuy saafara mooy ëpp téeméeri junni yoon li nga xam ne fekk nañ ko fi si ay mm. jafe-jafe mm. maanaam am na yoo xamante ne dafay laaj courage parce que pour man am na ay dëkkuwaay yoo xamante ne tey jii feek ñu ngi fay dëkk dañuy inondé parce que su fekkente ne dëkkuwaay fi nga dëkk dafa pant ndox mi day wàcc di ñëw mm. dafay jafé pour ñu saafara ko. donc amna yenen yo yoo xamante problème canalisation la ñu am amna na ñoo xamante ni di nga di nga dégg euh, ñu né la non du problème canalisation mais tali biñ ko fi défé ba léegi suñu kër yi day ta mm. parce que ndox mu bu ñëwee day dal ci tali bi wàcc si kër yi. donc problème la bo xamante gox bo dem rek ak ni ñu ko wara a mm. gox bo dem rek ak ni nga xam non la fa problème bi di wané woo. légui nak li war autorité moy euh, ñu jéma xol ku ci nekk rek li nga xam ne moo warlu pour ñu saafara ko ñu daal di koy def. Mm. mu bañ a doon loo xam ne tamit boo ko constaté nawet bi da nga bi di ñëw naka laay def ba am du mm. bi pour man leen servir de leçon docteur Cheikh Tidiane fu dem gis fa dara spécialiste ñu xool lii ak lii ak lii moo fi nekk. Mm. la def ba mu mm. mais su ne euh, dañ chaque année nga déclenché hors sec daal di jël ñii nga def ni éternel recommencement lay doon après indi ay pompe ñu ñu bu ndox mi bu bon pour

waa mais pour man am na dëkkuwaay yoo xam ne bu ko jaree dañ ko war a def. nga déplacé leen xool naka ngay def ba yóbbu leen feneen foo xamante ne dinañ fa nekk mais su fekkee nit ki dafay dëkk foo xamante ne bu bu bu nawet bi ñëwee kër yëpp fees. Mm. fees ba ci ba ci xam nga Kër Massar amoon na fa kàcce yu mel noonu boo demee da nga gis ñu léegi ñun deuxième lañ dëkk suuf mënatuñ faa dëkk. mais loolu su fekkente ne yow fi nga dëkk bu nawet bi ñëwee deuxième ngay dëkk ñi xaaj bépp génn dem nga dem ay boori mbaaw ko tooy fekkaat fa ay famille yu mel noonu. Mm. mais ñooñu chaque année même situation bi la ñuy dund. Mm-hmm. léegi ñooñu ban solution bu pérenne nga leen mën a amal. Mm. bu weesu loo xamante ne da nga leen déplacé parce que boo leen déplacé wul dèjà suuf si napp bi daf ko jege ba nga xamante ne pour mu tooy il suffit que mu wis rek ndox mi dootul demati. c'est vrai waaw léegi ñooñu nag naka naka nga mën a def ak ñoom est-ce que da leen fay bàyyi mënoo bâche asamaan si déedéet léegi lan nga mën déplacé leen nga mën su fekkee déplacé ngeen nga mais nga déplacé leen xool fan nga leen di yóbbu pour ñu dem pour ñu dem dëkki ji fa mm-hmm. mais tant que yaa ngi leen fay bàyyi dañuy inondé bu weesoo ñoo ci am na ñoo xam ne canalisation lañ soxla mm-hmm. am na ñoo xamante ne xam nga fii bu ke ba dañ naan normalement assainissement bu normal boo ko da ngay jiital canalisation yi mooy jiitu mm. mais fii da ngay dëkk ba pare ñoo nañ def nañ xool canalisation bi soog canaliser mm. suñu problème mettre la charrue avant les bœufs loolu responsabilité agni ak ñi nga xam ne moo les maires aussi mais, mais parce que nit ñuy dëkkee la tamit dañuy fàq dëkk loolu mooy mm. suñu problème da ngay soo am kenn dëkk ki dëkk ki dëkk ñu dem ba ba finalement foofu daal di foofu daal doon dëkk bu weesoo dëkk yi nga xamante ne dañoo fekk ko fi te loolu bu canalisation am nu mel problème du am te lan moo waral tey jii ñi nga xamante ne mën ne dañ ko wañ wañ gaa nga bañee sa mbànjaxaan ba mm. mooy ñu jiitu muy régime socialiste si di libéro yi daawuñu nangoo financer canalisation parce que ay milliards yooyu suul la mm. léegi ay milliards yooyu suul nag homme du ci sawar a financer xam nga li moom da ngay bëgg tey ji da ngay préférer dafa sa benn terre boo xam ne tey ji ku tam taxaw fële seen terre bi jàll nga ne ah Macky mooy ndaanaan que nga war a def benn tuyau boo xam koy dagg mu déparé wàqi naan jëm jëm jëm jëm jëm géej gi politique voilà nga nga def estimation bi mhm. ñu ne la waaw lii de moom boo matu dina doon cinq cent millions wala dina jege milliards boo jëlee fii bi dem Kër Massar bi ni kenn ne la déedéet yow def ko ay bus nga sànni ko fii gars yi gis ko su ko defee ñoo bus boo fi dugalee bi dañ naan mhm. loolu mooy problème bi calcul politique bi moo ñu sonal mhm. mo waral lépp lu jëm ci année euh, assainissement defar ay tuyau ay tuyau yu baax yu dëgër doo ko doo daana ko dëgg xool suñu réseau yi ñu suur rek presque yëpp benn baaxatu franchement te loolu pour man il faut que nous changer de fusil d'épaule mm-hmm. xool naka la def ba mën soulager askan inondation bu nawet ñëwatee mm-hmm. merci beaucoup Mustapha. Euh, Papa Samba par rapport à ce problème d'inondation au Sénégal euh, sans que manquer voir euh, première pluie les grandes villes du Sénégal Dakar ñu sous les eaux malgré milliards yi état Sénégal surtout au régime des audits mais problème selon vous ñi nga ne les acteurs concernés mu la population l'état central ak même les mairies wara mëna converger force pour euh, euh, régler définitivement ce problème. Bon, euh, le problème de l'inondation ici au Sénégal demeure mhm. toujours et encore. Parce que Japon, le plan décennal, comme nous waxé su ñué généré une partie. Mais moi, Japon, un peu de guñ ci goutte. Mhm. parce que waxuma la sax nawet. Mhm. yaa ngi ces quartier yo xamanteni ni quartier bu mujj mel ay Médina. Mhm. ay bop j'en passe. 365 jours sur 365 jours. day ball. te so xolé Médina fi nga xamanteni moy gën di ball ndox. moy fi nga xamanteni même pas 150 mètres ak canal bi jëm Soumbédioune. ba légui day ball. te Moustapha waxna sank mu né di nga ces genre euh, d'assainissement état du ci nangu investir parce que des investissements invisibles te ñoom chaque instant dañuy bëgg di des investissements visibles gis nga ba ñuy mhm. courage à deux mains ay kër kon lan tax suñu dimbal soulager bi ci problème inondation tâtonner mm. wala ñuy jouer ñun de yo-yo parce que nous on a besoin de poser des actes forts état bu nous dem ko morom mm-hmm. Ousmane Sonko di wala état du Sénégal bi ñom ñoo jiñoon Macky Sall barki de moo ne len yéen la lepp lu dal askanu Sénégal yéen la problème de l'inondation yéen la ñu ne kenn du baare asamaan si waxu mais dañu ne plan bi baxul yéenay pro yéenay problème bi kon ñom buñu ñu plan buñu def ay milliards yi nga war a def mooy ko ne saytu milliards yi fan la jaar ak kan moko jaarale fenen fudul fofu mhm. parce que si ces milliards là étaient arrivés à bon port gëm na ne waxuma la sax une partie mais au moins 75 parce que c'est un plan bien réfléchi bien coordonné comme ça dit que un a am pourcentage ne kat plan bi mais dans deux ou trois ans il la jëm ak Sénégal mais un plan boo comment on commencé à sax le milliard on ça veut dire détournement plan Donc, on mm-hmm. kon dañ ko population bi dañ soulager. may premier pluie mais du ay quoi. Ah, mais non attends je vous dis que le Sénégal fi ñun ñoo xamul taw ñun ñoo xamul taw man jogé na Dakar man j'ai quitté Dakar pour aller à Ziguinchor ah, mais mais mais mais journée lëmb 24 h 24 mais so vous fa nga nek do gis ndox bu bu traîner c'est parce que sur le plan social nit ñi dans les maisons les responsabilités sont partagées dans les maisons xamuñu fu ñu war a sànni mbalit xamuñu ndox et puis les communes d'arrondissement dans toutes les communes du Sénégal soo fa demee des tabliers des marchands ñoo ñëw jël ci rigole yi fu ñu nekk. Mm-hmm. ñu implanté fa. Mm-hmm. te curage bi ci war dëggantaan les mairies amuñu main d'œuvre amuñu moyens yu ñu ko defee dañuy taf yëngal dans mon quartier wëral doo gis vidéo wala gis doo gis projet bu un maire ici au Sénégal instauré ko dañuy dem dans les grandes artères faire semblant dindi ay suuf et puis tëjaat ko avancer. Mm-hmm. les rues yu ñuy defar dans les quartiers c'est pas des rues bien construits parce que rue boo xamante soko soo ko defee ndox di stagné wu kon cest dire c'est c'est mal construit mhm. c'est-à-dire ne Sénégal dafa bëri ay ay couac dafa bëri ay yàqu-yàqu yo xamante ni le problème de l'inondation nation ma né état bi sérieux ci les décisions yi nga xamante mi ngi koy jël par rapport à ces à ces fléaux moo tax d'année en année waroon nañoo weesu nag Sénégal fuñu démé ba nawet war a jot rek ñëppay tiit Sénégal neuf mois yëpp da ngay dund ci jàmm mais nawet fu mu jotee ñëpp ay tiit. c'est vrai amul kenn kuy nekk ci jàmm su nawet di am su nawet amee que ce soit muy même les services étatiques même nos gouvernants mm-hmm. képp koo dem biir këram wala buñu këram di nga fekk mu am inondation mu que euh, vraiment un problème euh, surtout lié à ces nouveaux euh, quartiers yi nga xam ne bu rek quartiers yi nga xam ne tubaab yi ñooñu fa ñooñu ko bàyyi woon da gis ils n'ont pas ce problème mu mel comme vraiment lu fi tubaab bi def baax mais ñun bu ñu ñëwee ci taf yëngal lañ ne m'oussafa loolu sax kii di le président Bassirou Diomaye Faye artu na le gouvernement aux côtés des sera aux côtés des populations il sera diligent le message du président Bassirou face aux populations comme nous l'attendions dès que les, les pluies commencent, les problèmes liés aux inondations aussi commencent. En trois mois, on ne peut pas réaliser les infrastructures pour les inondations puisse en si peu de temps euh, disparaître euh, Nous comme population mais carrément que nous euh, avons li nga solution si court terme Mustapha waaw mais bu dee à. c'est compréhensible aussi net net ñetti weer lañu fi def. ñetti weer mënuñoo ñëw def infrastructure bo xamné ne dañ naan li ñoko ko fi def pour pour mëna a ndox mi. j'ai beaucoup aimé discours bi docteur Cheikh Tidiane Dièye tenir démb fële ca Kaolack euh, un langage de vérité le tenir ñi xamné ñoo fa nek mu ne waxuñu leen ndox mi dañ koy dindi waxuñu leen dinañ ko dindi déwén waxuñu leen dañuy ñëw def liñ ci mën pour mun mën fee jógee. mais ñu ngi xaar aussi euh, si ñoom Moustapha pour ñu indi euh, des solutions aussi ñu pour def euh, xam ay études yoo xam ne de terrain pour xam naka la ñuy def pour soulager li nga xam ne moo nekk la population dans le long terme aussi. mais loolu mooy seen responsabilité. loolu mooy seen responsabilité bu ñu falee nit dañ lay faj pour pour dañ lay fal pour nga saafara ay mbir mi. mais tamit xam nga tey ji boo bu ñëwoon taxaw mu ne déwén bu soobee du ngeen fi gisaat ndox. bu nee dañ koy vaaraat indilaat ko vidéo yi. Mm. après ñu ne ko daaw ah da yaa fi taxaw nañu déwén dootu leen fi gisati ndox. loolu moo tax ma ak lépp lu mënti am waxal ak ñoom li nga xamante ne moo mën a nekk su ko defee au moins dina am loo xamante ni ëllëg kenn dula ko mën a jam naa ne mais su fekkente ne pap Samba mi ñu ko wax léegi nii dañ ci dugal des centaines de milliards. Mm. ñoom première état bi ñu njëkk a mooy auditer milliards yooyu. fan la ñu 700 ak léegi li ngay njëkk a def mooy. mooy auditer mm-hmm. tuutiwul waaw. léegi li nga war a njëkk def mooy auditer milliards yooyu fan la dugg milliards yooyu fan la ko gars yi dugal nan lañ ko gérer woon ak lan moo ci yegg ak lan moo ci yeggul. bu loolu noppee na nga xool fan la indi bi di flotté nga dem saafara ci ko. Mhm. donc étape par étape ngay demee. Mhm. mais su fekkente ne dañu jàpp ne rek tey jii képp ku inondé rek ne waa nguur gi la woon ñoom ñoo nekk ñu ma def nii j'ai vu ñenn ñoo xam ah, waaw gis nga ñoom ñoo nekkoon si biti ndox maa ngi noonu def leen ci lu ngeen ci mën mais le mais euh, avril lañ leen fal mënuñu laa fal avril inondation ñëw juillet nga ne ma tey jii bu inondation amul woon ñoom du seet si ñoom si Macky Sall la ñuy wax. Mm. à suppose ñu dem élection ben inondation amul ñu dem euh, nawet inondation amul Macky Sall lañ koy jox parce que mo fi dafa infrastructure yo ben inondation amul bu inondation ametit Macky Sall lañ wax parce que moom moo moom moo euh, bàyyi yenn yi ba inondation am mm-hmm. donc ñoom déwén lañuy ñuy commencé nag di am idée parce que dinañ am atum leum mm. ñu voter budget bi ñu yor xaalis seen i gis nañ li am ran légui déwén nak ñoom bu mu leen dalati parce que am du ngeen am lay su boba mm. wala ngeen ne fii lañ ko jëlee woon en tout cas ndox mi fii la daan yegg si léegi la yam kon bu ñu demaat euh, après demain incha allah dinañ ko gën a wàññiwaat loolu la ñuy xaar ci ñoom Je tax actuellement ni ni ni ni actif inondation ça c'est vrai pour mhm. être vraiment sincère. Mhm. mais aussi euh, manque civisme population bi. aussi ah on en ah parle aussi. Ah euh, canalisation yeeg voilà. moy mhm. problème bu mag manque civisme parce que ay ci ay ci ay ci ça problème. est ce xam sont en train de faire du sabotage aussi. parfois sabotage parce que xam nga dinañ def tout pour bloquer affaire pour yenn dëkk am inondation ñu ne fu daawul fatt fatt na parce que ñoom Sonko ñoo fi nekk mm. mais xam nga am na ñoom ne idée boobu la mm. am bu doon Macky Sall moo fi nekk man damay taxaw ma ne wala keneen taxaw ma a taa mm-hmm. bu bu man na laa koñ ba mu taa fii daraan taa mm-hmm. waa warul am ndam donc am na ñoom bu ñu taxawee raisonnement boobu ñuy def ñooñu sont sont sont pas des sénégalais mm-hmm. xam nga xam nga xam nga Sénégal Sénégal fu cohésion sociale buñ soxla moy kenn ku nekk parce que Sénégal dafa nekk dans dans l'impasse mm. ba kenn ku nekk da nga war a am loo bàyyi bàyyi vidéo yi bàyyi dénoncé bi te poser ay actes mm-hmm. ñun on est tout le temps dans le populisme mm-hmm. di ko jiiñante mm-hmm. ñi mën nañ ñi mënuñu wax nga ko sànq je te jure am na ñoo xamante ne ni tey jii suñu sañoon le président Bassirou Diomaye Diakhar fay échec te tu es un sénégalais est-ce que loolu fierté sénégalais bi la toog gis tey Sénégal il y a de ces problèmes d'inondation parce que c'est mon nañu ko le seen bopp mhm. mais il préfère faire des vidéos il préfère dénoncer que de poser des actes mhm. parce que Sénégal fu mu toll nag ku nek da nga wara joxe sa xam-xam man li euh euh euh saluer ci Cheikh Tidiane Dièye mo que ne di nga askan so len yoré il faut mhm. nga tenir un langage des vérités tout à fait parce que deug mooy njëkk moom moy mujj te il faut avoir le courage de le faire beaucoup n'ont pas ce courage motax tax kenn ku ñuy ñuy ŋàññu suñu euh, homme politique yi mais politique métier bu noble la. Mm-hmm. kañ ngay noble nag mooy fi nga xamante ne yow taxaw nga am nga maturité wax askanu Sénégal dëgg. am askan bi nga jiite dëgg. mais nag il faut que ñu xam benn affaire. dañ leen fal pour ñu régler ay pour ñu régler suñu problème. Mhm. effectivement parce que ñun 2024 lañ nekk quoi tubaab bi depuis 60 la fi ñëw régler problème inondation mhm. Dakar centre ñun ñu ne en 2024 nous sommes incapables de régler ce problème. mais jamono jooju population bi. Hein. mais c' mais les gens étaient très civilisés. mais mais mais léegi nag. moo tax ma la on était sixième sixième avis pas 3 millions. mais ma ma ma en plus on était civilisés quand même. boo mais mais mais allez-y en Chine allez-y en Chine bu leen ñu ne mais ñun c' est au Sénégal au lieu que 18 millions. mais c' d' accord loolu moo tax ma la les gens étaient civilisés. civilisés ouais léegi nag moo loolu loolu nag c'est-à-dire ne di nga civilisé boobu noonu c'est-à-dire ne civisme ak boobu noonu nekkoon suñu mag ñi moom mo commencé di dañ de jour en jour il faut que nit ñi ñuy jàngal leen patriotisme jàngalaat leen civisme léegi xale yi sax xamatuñ ko te civisme ñun dañ ko doon jàngal dañu ko doon jàngal à l' école primaire éducation civique mais léegi malheureusement xale bi xamatut loolu en fait mm-hmm. parce que la la génne nañ ko sax ci circuit scolaire bi mm-hmm. parce que lépp loo def ci ci ci kër gi parce que ñi ne ci kër ñi yaradiku ñoo nekkaat ci biir salle de classe yi jàngal xale yi ku yaradiku nag mënut a yar xale mm-hmm. te xale yooyu nag ñooy màgg dans les 10 ans wala dans les 20 ans à venir xale yooyu ñoo fi nekkaat te léegi day continuer merci beaucoup Pape Samba Bataille nous euh, euh, si euh, même sujet bien. cette fois-ci on reste toujours avec